Ibrahima Diarra nekk membre du conseil des sages de Benno Bokk Yaakaar suñu jotaay tey ak yéen la presse waxtaan la bu jëm ci xalaat bu dikkal conseil des sage bu benn Bokk Yaakaar ci jóg dugg ci dëkk bi mbaa dugg ci dëkk yi par rapport ak vision du chef de l'État ci li nga xam ne moo jëm ci xalaat bi mu am jëmee ko ci këri diine yi ñu ne dina jaadu ñu jóg en tant que ay sage te jóg bi ñu jóg du campagne du pré-campagne dafay suñu warugar en tant que mag suñu gisee luy dox te muy lu baax ci réew mi ñu jóg dox ci wax ci kon ci wax jooju moo ñu poussé ginnaaw bi ñu jógee xalaat ne war def ay action ñu ne nañ ko tàmbalee ci dem gis kilifa diine yi waxtaan ak ñoom waxtaan bi comme ni ko ñi ma jiitu waxee léegi dem na ci loo xam ne lii pour ñaan dëkk bi am jàmm ñaan pour réew mi am jàmm ndax lu jàmm newul dara du fa ne kon loolu bu ñu ko defee waxtaan ak kilifa diine yi également ci li nga xam ne moo dem ci xale yi ci jàngal leen yar leen soppi jikko yi ndax ñu am yaakaar ne ñoom kilifa diine yi taxawaay bi ñu fi taxaw ak yaakaar bi ñu am ci ñoom ak li ñuy liggéey jëmale ko ci xale yi te xale yi ñu yaakaar ne ëllëg ñooy doon magu ëllëg am na loo xam ne ci ñaari diine yi kenn ku ci ne ca fa nga nekk boo ko dugalee muy ay jikko baax ci xole yi daañu am loo xam ne li ëllëg jikko yu baax la ñu yoree réew mi parce que dañ ne réew mi nag ku la gën a ndaw moo la gën a réew kon ñu xalaat ne loolu bu ñu ko doxalee dana doon loo xam ne lii danañu dimbale ci lu réew mi fa mu jëm eh, kuy jóg di yëngatu nag ci fu ñu toll tey ak suñ ne conseil des sages Benno Bokk Yaakaar ñu ne ñuy campagne moo leen tax a jóg waaye campagne jotul beñ campagne. yi ci pré campagne suñu action daal mooy lu jàmmal réew mi lu yokk réew mi ak jël xalaati chef de l'État par rapport ak vision jëmee ko ci këri diine yi ñu àggee ko kër diine gën leen a waxtaan ak ñoom gën a ubbi seen xel gën leen a xamal fay jubluwaayam pour que ñu jàppante chef religieux ak chef coutumier suñu boolee doon ba ne ak xalaat yi pour liñ bëgg ci réew mi ëllëg jàmm man fee sax loolu mooy li nga xam ne moo ñu taxoon a jóg ba ñu jógee it ñu tàmbalee ko Thiès dem Tiwaawoon mujjee fii tey bu ñu jógee continuer kon lii moo doon suñuy tànk lii moo tax tey jii ba ñuy demee ba nga xam ne tey jii fii lañuy ñuy yemale bu Thiès ñu ne nañu dajeeg yéen waxtaan ak yéen wax leen li nga xam ne moo doon suñuy tànk ak li ñuy mbébét ak fu ñuy jëm loolu la ñu doon loo xalaat boo xam ne mën nañ leen ko jox pour ngeen àgg leen ñu ko. ci li nga xamoo doon suñuy tànk wasalaam. de la presse. mesdames, messieurs. sans oublier les demoiselles. ayant l'insigne honneur de m'adresser à vous aujourd'hui me référant sur notre dernière réunion du 18 juillet 1918 2018 à la permanence de Benno Bokk Yakaar à Dakar Liberté 3 pour le conseil des sages que nous sommes nous avons décidé de faire un déplacement dans les deux départements Tivaouane et Thiès pour jouer sur la transmission d'un message de paix à l'endroit de toutes les populations, sans distinction. C'est pour cela les familles, les foyers religieuses ont été une cible pour nous parce que dans ces foyers religieuses, nous avons toutes les communautés pour le Sénégal. Ainsi, nous avons établi un calendrier qui se définit sur 18 étapes. Nous avons commencé notre tournée le 21 samedi d'hier. Notre point de départ était Tivavone, la Sainte. Nous avons rencontré la famille religieuse, plus le collectif des imams, plus la communauté chrétienne. C'est de là-bas que le cortège de la délégation à fait cap sur Ndiassan. Nous avons parlé de la paix, car rien ne peut se dessiner sans la paix. Et nous, les sages, avec l'expérience, l'expertise qu'on accumule, on ne peut jouer que sur la paix. Le 22, nous avons continué notre périple. On est allé à Thiès, chez Tcherno Abuja. De Tcherno Abuja, nous nous sommes retrouvés chez Abdoulaye Yahid. De là-bas, on est allé chez Maron, Mbaye Maron. De Mbaye Maron, on est allé chez Cheikh De Cheikh Diop, on est allé à Ker Mam Aladji Ndjegen. Après, on est allé à chez Seigne Moussa Fall, Djeuri. Nous nous retrouvons après chez Seigne Saliou Touré. Après, on ira à Tchona. De Tchona, on fait cap sur Morolan, Daru Alpha, Moro. Et on termine à Tuawan pour jouer la dislocation. chers amis chers amis journalistes voilà ce que les sages avec la moyenne d'âge de 73 ans vers 90 ans nous nous sommes à travers ces deux pour rendre compte de la situation du pays et que nous ne cherchons que Avec la paix, nous réussir notre mission. Merci, donc je reprends. Je suis Aloïse Gourguignon, ancien sénateur, membre de la commission des sages. Je voudrais donc, euh, mes, mesdames, messieurs les journalistes, vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Cela dit, je voulais rappeler comme euh, mon ami Badara euh, Ba l'a dit tout à l'heure du dimanche 21 au du samedi au dimanche juillet la commission des sages de Beno Bokyakar a effectué à leur initiative une mission de paix et de stabilité de notre pays. En raison de l'exception sénégalaise qui fait la fierté de notre pays, les sages ont trouvé bon de garder encore longtemps le patrimoine que nous ont légué nos ancêtres et nos chefs religieux. C'est la raison pour laquelle nos sages ont parcouru beaucoup de quartiers et de villes de la région de Thiès euh, pour demander à leur population de renforcer et de maintenir nos acquis qui constituent un modèle pour le monde entier. Nous avons demandé à nos chefs religieux de prier le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans ce sens. Nous leur avons demandé aussi de prier le Seigneur Dieu d'amour, de paix et de miséricorde en faveur du président Macky en vue de sa victoire en février 2019 dès le premier tour. La commission des sages m'avait demandé également de, mettre, de me mettre en rapport avec l'évêque André Gay euh, pour qu'il puisse accorder une audience à la dite délégation. Son vicaire général, Abbé Henri VI, m'a fait comprendre que l'évêque est absent du Sénégal. Mais dès son retour, il ne manquera pas de recevoir cette délégation. Je vous remercie pour votre aimable attention. Euh, compte tenu des, des, des, des questions qui ont été posées. Et comme l'a dit tout à l'heure mon homologue, euh, une personne dont l'âge varie à 90 ans ne peut être considérée que comme un sage. Mais étymologiquement, quel est le rôle d'un sage dans Le rôle d'un sage dans un pays, Vous savez, j'ai l'habitude de dire à mes enfants que quand vous taquinez un vieillard, il peut vous pardonner. Il vous dira tout simplement, je suis vieux, je vous pardonne. Comme on dit en Wolof, Bayana Lagyal. Mais quand il s'agit d'un jeune comme vous, faites-moi confiance, il vous dira, non de me frère. Or, mieux vaut prévenir que de guérir. Notre mission aujourd'hui, en dehors même du fait que nous soyons partisans, ce qui est tout à fait normal, nous avions ce droit mission, c'est plutôt de prévenir. Et nous savons qu'en général, il y a toujours des tensions électorales en Afrique. Nous ne pouvons pas faire une exception. Nous sommes un pays comme tous les autres pays. Et nous nous sommes dit en tant que sages, quel doit être notre rôle aujourd'hui C'est de sortir, c'est d'aller dans nos campagnes, c'est d'aller voir nos chefs religieux qui, qu'on le veuille ou non, jouent un rôle de régulateur dans ce pays. Pour leur dire, priez quand même pour ce pour nos enfants, priez Parce que si jamais, n'est-ce pas, ces sages ne se laissent pas et qu'on trouve qu'on se trouve dans un embrigo, j'ai la certitude que vos micros et vos télévisions, mon vieux, ne fonctionneront pas. Donc je crois que notre mission est une mission très sage, qui demande vraiment à être applaudie par tout le monde. Tout à l'heure, l'un de vos homologues a parlé en nous disant pourquoi ne pas dire au président de la République ceci ou cela. Vous savez, je crois que notr expérience en tant sage nous a dans ce pays de beaucoup apprendre et d'avoir beaucoup vu. Nous avions, dans un pays, nous avions une république. Un pays et une république, ça s'organise. Et j'ai la certitude qu'au niveau de vos rédactions, c'est la même chose qui se passe. C'est la même chose qui doit se passer. Vous vous organisez. Dans ce pays, il y a ce qu'on appelle un pouvoir. Le pouvoir est là, il a son programme, il a son plan. Des Sénégalais ont fait confiance, on lui a dit, dirigez-nous. Mais vous nous dites aujourd'hui pourquoi le président. Mais le rôle du président a été très clair. Il a fait appel à une opposition. Et n'oubliez pas que ce président et nous-mêmes qui vous parlons, nous avions eu à faire l'opposition. Et c'est ce qu'on a remplacé. Ce n'était pas cela même parfois qui nous demandait de venir sur des tables de négociation. Si l'opposition était venue dans les, sur la table, dans les tables de négociation, dire son mot, mais on l'aurait pris en compte. Mais quant à dire je ne viens pas, mais voilà ce que je veux, Mais cela quand même convenait avec nous que ce n'est même pas responsable, ce n'est même pas républicain. Ça, c'est la participation que je voudrais donner pour compléter mon...